pour deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre. Mhm. à que lii waaj a ñëw mois de mars avril ak mai yooyu yëpp ñu ñambaasaale waale ko ci <laughs> mais mënul nekk deux mille vingt quatre xanaa ñu ne sax fi jusqu'à janvier deux mille vingt quatre. waaw mën nañ ne jusqu'à jusqu'au vingt cinq février deux mille vingt quatre par exemple. voilà mais man ni may dégg ñuy wax depuis un certain temps mooy amnistie de deux mille vingt et un deux mille vingt quatre. Mhm. leneen li nga xamante ne nii également war nañ ko xam mooy. Euh, faits yi nga xamante nii moom la amnistie bi di viser xam nga Moustapha mënuñu wax ne. quand dañuy voter les lois au nom du peuple. ñu war a appliquer wu ci même peuple boobu te peuple bi xamuñu lu ci xew. Hmm. c'est pas normal. xam nga euh, te loolu yaakaar naa ne euh, day wone rek relation bi nga xamante nii Macky Sall am na ko ak sénégalais maa ngi leen di wax sànq ne cër bu muus joxul jinax joxuñu ko. li tax xoolal président yi jaar Sénégal yëpp képp ku ci mës dem bitim réew. bitim réew soo ñibbisee RTS mu ngi lay xaar buntu aéroport aéroport. boo yegsee di nga wax loo doxi woon. Mhm. ak noo ko doxee woon. ak ñan nga fa gisee. très bien mës ngaa gis Macky Sall mu def lo nañu ne Macky Sall mu ngi dem fële. lee la fay dox ji. parce que du ma ko seetaan. Ah, loolu moom loolu moom loolu il faut il faut tamit nga am honnêteté day wax loolu président Macky Sall bés buy jël avion. mënuñu ni ah, day jël vol bi rek ñu ni président dem na amul day def communiqué il faut tamit bu ñuy wax ak Sénégalais ñu wax lu dëgg. day dem communiqué bërëb sàngam la jëm lii la fay def doxi mais koo xamante ni balaa mu yëgg ca milieu bu mu jëm wax na la lu mu fay looy xaar ci moom. léegi naan fi la demoon d'accord léegi léegi may ñu àggal suñu émission waaj. Mame Birame waaj. xoolal bul bàyyi di a plus de ah. temps là. li ngay wax ak man li may wax bokkul. Hmm. dama ne président su ñëwee. Hmm, télévision nationale da koy xaar ca aéroport ba mu wax lan la dox. mu def compte mu def compte rendu. Macky Sall nekkut ci loolu. Euh, te projet bii nii bu ñu nee. dañuy voté loi si boo xamante ni dafa war a effacer ñetti at. daanaka pour man dañ ko war a leeral sénégalais ba ñu xam lan la balaa ñu ko yóbbu assemblée nationale. est-ce que débat bi assemblée du ko leeral. les débats entre députés. Si. Mm-hmm. mais quand mais, mais quand foofu lañ ko xaar évidemment oui mais allez mais quand on te dit ne dafa jàll conseil des ministres sans que yi xam lu nekk ci biir loolu lii on a dit wax nañu ne am na ñoo xamante ni voté nañ ko te xamuñu lan moo nekk ci biir. parmi les ministres am na des députés yoo xamante ne nii. mais dossier bi dañ ko war a jot assemblée nationale de euh, comment dire euh, ay ay avant dañuy bàyyi balaa la ñu doog leen ko jox nga xamante ni travail bu sérieux du ci am. Hmm. mais dans tous les li nga xamante ni moo ci am solo. Hmm. mooy ñu xam yan fee. la amnistie boobu di viser. xam ba xam affaire finance ci la bokkam de. très bien mais c' est plus que fondamental. nga bu ñu nee crime rek yem ci. mun hmm. na nekk crime de sang. comme mën na nekk crime financier li ñu fi def ci Covid bi crime financier la donc buñ ñu waxee déjà que ay crime de sang la boobu déjà yaakaar na euh, analyse bi ñu ciy def ak commentaire yi ñu ciy def du bokk ak bu ñu nee crime financier def ci bopp hmm. maintenant man li may wax mooy bu nekkee ne dañoo bëgg a jëm ci réconciliation hmm. il faut d'abord ndey mbile gi mu présenter aux Sénégalais ses excuses par rapport ak lii fi xew yëpp bañ war koo am amnistier parce que ci nguuram la xewee te responsabilité bu leer nañ la ci am day commencer d'abord par jéggalu mm-hmm. comprendre mm-hmm. bu ñu jóge foofu mm-hmm. ñu ne lii nga xam ne moo fi xew dañuy situer les responsabilités pour xam. mooy moment wu vérité. très bien ku nekk ku nekk position bi nga xamante ne def nañu discours boo xamante ne oh discours bu violent la. est-ce que tamit parallèlement comme ni nga wax ni président Macky na taxaw jéggulu am benn problème mën nangul la ko mais est-ce que lit lan moo la tere yow wax ni ñi nga xamante ni génnoon nañ fi wax dem leen daj ji kër sàngam ñi nga xamante ni génn ni xale yi nañ tas tase ci mbedd mi ñooyu doo leen wax ñu génn ñu jéggulu Sénégalais yi parce que effectivement am na ñoo xamante ni xëy na ñàkk nañ seen bakkan ci woote boobu lan moo la tere wax loolu. même bi dafa waaw li li tax ma koy wax man j'aime euh, comment dire réfléchir logiquement. xëy na wute naa ak ci loolu. mais man j'aime la logique. la logique mooy lan mooy manifestation yi am deux mille vingt et lan moo ko sooke. jeunes yi dañoo jékki-jékki rek ñu ne leen génn leen taal euh, euh, manifester non non yéen a jël ab xale bu ndaw ne dafa dañ ko viole du dëkk yow boo ko woon ci ñu doon débattre loolu naan Ousmane euh, Ousmane Sonko suite boote peut-être viol menace ak leneen ak leneen looloo indi coow li. léegi justice la la wax ci loolu. ju justice nee na viol amul. lan moo am te yéen a fi doon wax. ay lan moo am lan lan moo am. non viol ngeen doon wax. déedéet lan moo am justice lan la lan moo am. Eh, vraiment. li am xam nga ko s'il te plaît déedéet lan moo am. justice nee teg nga loolu da nga naan ma a lii wax am. maam Birame daaneel li ngay wax ñu dem. nu may daanelee ak waa ji. <laughs> da ngay yow yaa moom naan ma justice dafa ni lii moo am. moom ñaari mais justice li mu wax moo gën a garaaw sax. ay ay viol Sall Sall s'il vous plaît. maam Birame àggale ñaari argument la am joxe na ko du ma bàyyi ma joxe samay argument. àggale la waaye ma joxe samay argument. li li may wax mooy. <laughs> balaa ñoo wax réconciliation. dañuy wax d'abord vérité. Mhm. te pour nga wax vérité il faut que nga situer les responsabilité parce que ñi fi. par exemple on Euh, li li nga wax ah maam Biram le président de la république mën na ne ci nguuram la amee li fi xew yëpp moom mën na excuser wu. mën na ci d'accord mais tey bu ñu defoon ay enquête ba situé ne c'est parce que Ousmane Sonko a dit ceci moo tax li am su boobaa ñu ne Ousmane Sonko di excusé wu loolu mën na rek. non non départ ba xam nga fan la. ci problème mu non. Ah, s'il vous plaît s'il vous plaît ce n'est avec vous là. allez Moustapha. Mhm. fi xew 2021 la. Mhm. nekkul au 15e siècle nekkul au 17e siècle. mars 2021.